mobilité wala ñu naan insertion xoolaat itam lan la ñuy choisir seen filière d'enseignement ak lu jëm ci mbirum entrepreneuriat ndaw ñi ci biir Afrique rawatina ci réewub Sénégal loolu lépp di ay laajte yu nga xamante ne teg nañ ko ci kaw table bi ngir rek waxtaane ko jamono ji nag di gën a urgent rek mooy accompagner étudiants yi élèves yi ba ci jeunes entrepreneurs yi ñu mën a xam fan la ñuy teg seen i tànk loolee waxal bi les salon mi ngi yëngu ci wàllu euh, accompagner ndaw yi ci seen wàllu njàngat ak seen wàllu xam-xam ak seen wàllu euh, dem ci wuti xam-xam ci wàllu liggéey ak ci wàllu wut ay jumtukaay yoo xam ne dina leen permettre ñu faciliter seen liggéey wala ñu mën a orienté wu ci seen wàllu njàng. yile acteur jamono ji amaguñu ndimbalu état bu Sénégal waaye nag mën nañoo am yaakaar ci seeni partenaire rawatina ci bu Ndakaaru on a am nañ ay partenaires yoo xam ne ay école lañu dañuy joxe ay formation yoo xam ne gratuite la wala gratuitul am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba ne su élève bi wala ndaw bi wala étudiant bi bëggee dem bitim réew naka lay def ba dem tey maire bi tey am na ay yoon yoo xam ne tamit su fekkee dafa bëgg étudiant bi dafa bëgg am bourse bourse ci wàllu jàngat bourse ci wàllu gën a mën a insérer wu dem bitim réew jàng loolu lépp maire bi taxawal na ko te loolu dañu bëgg boole acteurs yëpp muy état bi privé yi public bi ak ñun ñu mën dem ci loolu gën ci saytu. bi les première édition bu salon du campus dinañ ko amal ci diirub ñaari fan. te nag dina dajale ay kàngam yu bari ñoom ñëpp nag nara booloo waxtaan ci nan lañuy ñuy ndaw ñi ñu mën a def ay choix yu baax yi les nag di tàllal seeni loxo. nguuru Sénégal